بركة الذي الوجود والخدم على bu Touba université la bu ñu taxawal ci gisin ak njàngaleem Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba gisin boobu mooy jaamu yàlla ci sàkku xam-xam ak jëfe tey sàmmoon tekk yar ak jikko yu rafet gisuñu Cheikhul Khadim boobu moo sabab mu sanc dëkk bu sell bi di Touba nga xam ne li mu ci jublu woon mooy mu nekk barab bu ñuy sàkkoo xam-xam bu sell te am njariñ barab bu ñuy gindikoo ci diine ak bu ñu mën a jaamoo yàlla ci anam yu gën a jàppandi ni mu ñaanee boromam ci xasidaam googu di Matlabul Fawzeyni muy wajhal hudabban maskana taallumi wa mawdial fikrati wa tafahumi wa maskanal irshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi te mooy suñu borom maa ngi lay ñaan nga def sama dëkk bu sell bii di Touba mu doon faaw barabu sàkku xam-xam bu seetantal ak dégg xam-xam maa ngi lay ñaan nga def ko moom sama dëkk bu sell bii di Touba barabu gindiku ak jàngale barab bu ñuy tegee nit ci yoonu njub mu dellu xam ne suñu borom defal na ko ci dëkk bu sell bii di Touba daara ju mag joo xam ne bépp xam-xam bu am njariñ bu nit mën a sàkku rek dina ko fi fekk bil mustafa lii banal xuddoosu madrasatan bihaa yazulul aza wal jahlu wal kabadu suñu borom tabaxal na ma ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daara joo xam ne dina dàq lor réer ak féetéerlu looloo waral xalifaam bu tedd bii di sëriñ Abdou Lahad Mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal sumb ci dëkk bu sell bii di Touba université bu mag muy daara ji féete ci njàng mu kaay mi ginnaawam sëriñ Saaliw Mbàkke moom it yàlla nañu ko yàlla fayal am lu mu àggale ci naal wu tedd woowu ba njàng mi mën a tàmbali naal bu am solo boobu nag moom la Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke mi fi nekkal tey sëriñ Touba yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér fas yéene àggale sof ci tànk njiitam yu tedd yooyu liggéey bu rëy mën a jëmmal bu baax seen yéene yu sell ji ñu amoon ci Touba université Touba mi ngi tënku ci ñetti ponk yi alxilmu naafix alxamalu saalix al adabul mardiyu te mooy xam-xam bu am njariñ jëf ju baax te sell koy rafet ak teggin yu ñu gërëm université Touba nag dafa fas yéene bokk ci université yi gën a mag ci àdduna bi ci wàllu njàngale mu wéeru ci pas-pasu diine ba noppi ubbeeku ci àdduna ci wàllu gëstu ak suqali réew mi ak àdduna sépp ci wàllu tasaare lislaam ak njàngaleem Serigne Touba looloo waral mu bokk ci jubluwaayu université Touba yi ëpp solo fexe ba jàngale bépp xam-xam ci diine wala ci àdduna bu mën a jariñ doomu aadama te sukkandikoo ko ci lislaam ak li Serigne Touba jàngale fexe ba jariñ ñi dëkk Touba jariñ waa Sénégal ci xam-xamu diine waaye it di leen former ci bépp métier wala liggéey bu leen amal njariñ te mën a suqali dëkk bi di Touba waaye jëme kanam yoonu murit ak réewum Sénégal fexe ba lépp lu ñu jàngale ci université bi dëppoog suñuy gëm-gëm ak suñuy pas-pas te mu dëppoog fi àdduna toll ci xam-xam ak xarala ngir taxawal université xaadim rasool bu Touba dinañu ko liggéey ci ñaari phase phase njëlbeen gi dinañu yam ci yenn faculté yi ëpp solo phase bi ci topp ci la ñuy soog a yaatal bu baax limu faculté yi te boole ci yeneen xeeti xam-xam yi ñuy jàngale ci université yu mag yi ci àdduna bi loolu tax na phase bu njëkk bi ñi ngi ko fas yéene liggéey ci barab bi sëriñ Abdou Lahad di ñetteelu xalifa sëriñ Touba tànnoon ngir tabax fa université bi ci pàkk bu sell boobu toll ci ñaar fukki hectare ak ñett ci la Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke mi fi nekkal sëriñ Touba yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wer fas yéene def juróomi xaaj yi nar njëkk ci université bi institut préparatoire di Coran et des sciences religieuses te mooy daara ju ñuy waajale ndaw ñi war a dugg ci université bi te mu jëm ci njàngum alxuraan ak xam-xamu diine faculté des études islamiques te mooy daara ji ñuy jàngalee xam-xamu diine yi faculté d'agronomie et de technologie alimentaire te muy daara ji ñuy jàngalee xamxamu mbay ak li ci aju institut supérieur de formation aux technologies et aux métiers te muy daara ji ñuy jàngalee njàngum métier service administratif mooy barab yi ñuy saytoo université bi institut préparatoire di Coran et des sciences religieuses mooy daara ju ñu lëkkaleek université bi te ñu waajale ndaw ñi war a dugg ci université bi te ñu jagleel ko njàngum alxuraan ak xam-xami diine li tax a jug institut boobu mooy fexe ba suuxat ndaw ñi war a dugg ci université bi ëllëg te ñu jaarale leen ci njàngum cosaan te mooy njàngum daara ak majalis jëmmal bu baax ci université Touba njàngum alxuraan ak xam-xamu diine ni ko Serigne Touba bëggee woon ak ni ñu ko baaxoo ci bépp daara ju ñu mës a taxawal ci yoonu murit fonk gi seexul xaddim fonkoon alxuraan ak xam xamle gi mu xamle ne bépp xam-xam bu sell te am njariñ ci téereb sunu borom bi la soqi ko moo waral ñu fas yéene jiital ci université Touba mokkal ak bind alxuraan boole kook xam-xami diine yi balaa ñu ciy teg yeneen xeeti xam-xami àdduna yu am njariñ taxawal daara ju mag ju aju ci ki fi nekkal Serigne Touba ju mën a jàngal ndaw ñi alxuraan ak xam-xami diine ci luñ leen dul fayu dara institut préparatoire boobu am na ñaari daara ci biir institut coranique daaru alimul xabiir ak centre de formation en sciences religieuses institut coranique am na internat bu mën a jël lu toll ci junniy xale di leen tàggat ci mokkal ak bind alxuraan ak yeneen xam-xam yi aju ci téere suñu borom bi centre de formation bi ab majalis la bu mën a jël lu toll ci junniy waxambaane di leen tàggat ci xam-xamu diine di ko sukkandikoo ci téerey sëriñ Touba ak yeneen téere xam-xam institut coranique ak majalis bi dinañu am ay bibliothèque ak ay infothèque yu dëppoo ak jamono te xarala yu ndongo yi di mën a jëfandikoo ngir yombal seen njàng étudiants yi jànge ci biir université Touba bi nag mën nañoo jóge ci daara ak barab yu wuute fu ci mel ni yii ñu leen di limal institut préparatoire boobu muy barab bi ñuy waajale xale yi école arabe privée yi école publique yi daaray cosaan yi ak majalis yi wala yeneen université yi wala école yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bokk gi mu bokk ci système scolaire bu Sénégal nag tax na diplôme yi génne ci université Khadim Rassoul di ay diplôme yu valable yu état Sénégal ak yeneen université yi reconnaître kon képp ku génne ci université Touba mën ngaa dem ci yeneen université ci Sénégal wala bitim réew. faculté des études islamiques te ñu koy wax kulliyatul dirasatul islamiya mooy faculté bi ñu jàngalee xam-xamu diine yi. fonk gi Serigne Touba fonkoon xam-xam yooyu moo waral faculté bi bokk ci ëpp solo ci université Touba bokk na ci jubluwaayam yi ëpp solo képp ku jàngati araab wala xam-xamu diine ci réew mi te bëgg a génn dem bitim réew di nga mën a yam ci université Touba. cours yi ñi ngi koy joxe ci salle de classe ak amphithéâtre bu faculté bi amphithéâtre boobu nag ab salle de conférence bu yaatu la te mën a def lu toll ci junniy doomu aadama dañu fas ko yéenee jëfandikoo ci yeneen xew-xew yu diine yu mag yi am ci dëkk bu sell bi di Touba yu ci mel ne màggal faculté bi dina mën a jël lu toll ci junniy étudiant ci njëlbeen te dina am ci biir yi ñu leen di limal juróomi département ñaari institut benn centre de recherche juróomi département yooyu nii lañu ko fas yéene tërale département bu tawhid département bu alquran ak hadis département fiq ak hanuun maanaam droit islamique département tasawuf ak muridiya département làkku arab ak littérature ñaari institut yi nag nii lañu ko fas yéene tëralee institut de langue et de traduction te mooy daara yi ñuy jàngalee làkk yi institut de finance islamique et de gestion te mooy daara yi ñuy jàngalee ni ñuy saytoo alal ci lislaam centre de bi nekk ci faculté bi mooy barab bi ñuy fas yéene saytu bépp gëstu bu jëm ci xam-xamu diine yi ndono lu am solo li fi Serigne Touba ak mag ñi bàyyi dundal làkki réew mi ak yeneen fànn yu bari centre de recherche boobu dina am ay laboratoire de recherche benn centre de documentation ak ay bureau faculté d' agronomie et de technologie alimentaire faculté la buy jàngale xamxamu mbay ak yi ci aju li waral ñu taxawal faculté boobu mooy solo si mbay yàgg am ci yoonu murit ak njariñ li mu am ci suqali réew mi faculté d'agronomie bi mën na am lu toll ci juróomi téeméeri étudiant ci tàmbali te dina am lu toll ci juróom benni département production et technologie végétale te muy xam-xam bi jëm ci wàllu gàncax production et technologie animale te muy xam-xam gi jëm ci wàllu càmm science di sol mooy xam-xam bi jëm ci wàllu suuf génie rural di xam-xam bi jëm ci wàllu mbay agroalimentaire te muy xam-xam bi jëm ci wàllu dund science environnementale te muy xam-xam bi jëm ci wàllu alam bi maanaam environnement faculté d'agronomie bii dina am ay laboratoire benn amphithéâtre bu yaatu bu mën a jël lu toll ci juróomi téeméeri étudiant ak i terrain d'expérimentation maanaam tool yu ñu mën a tàggatee étudiants yi institu supérieur de formation aux technologies et li tax a jug institut supérieur de formation aux technologies et aux mooy fexe ba tàggat ndaw ñi ndax ñu mën a am ay formation yu dëgër rawatina ñi dëkk Touba ak feneen ci biir Sénégal loolu bokk ci li gën a mën a wàññi ñàkkum xëy tey suqali réew mi institut bi mën naa am lu toll ci juróomi téeméeri étudiant te dina am juróomi unité de formation yi ñu leen di leeral artisanat maanaam lu jëm ci menuisier maçon peinture décoration sérigraphie ñaw tapissier wuude ak yeneen mécanique électronique informatique ak commerce muy wàllu jënd ak jaay institut bii dina am ay atelier ak benn amphithéâtre bu yaatu bu mën a def lu toll ci juróomi téeméeri étudiant université Khadim Rassoul yamul rek ci ay faculté ak i institut ndax dina am yeneen bâtiment yu bari yu ñu jagleel ñi ciy liggéey ak lépp lu université bu dëppook jamono war a am incha allah lu ci mel ni yii rectorat maanaam ñiy saytu ak doxal université bi ñetti amphithéâtre muy ay saal yu yaatu benn bi toll ci junniy place te ñu mën caa amal yeneen ndaje yu mag yi xew ci dëkk bu sell bi di Touba ak yeneen ñaar yu toll ci juróomi téeméeri place bibliothèque bu toll ci junni ak juróomi téeméeri place te mën a jël ay téeméeri téeméeri junniy téere campus numérique ak infotech maanaam ay ordinateur ak yeneen jumtuwaayu xarala te yombal gëstu ak njàng mi ay saal yu ñu mën a enregistrer cours yi ngir jàngal ñu sori te ñu koy wax e-learning connexion wifi bu mën a tax étudiants yi di connecté internet te duñu fay dara énergie solaire bi jóge ci jant bi campus social bu junniy étudiant mën a dëkk ay barab yu jàpp ni ñu mën a dalal gani université bi ñaari restaurant benn bu toll ci junni ak juróomi téeméeri place ak beneen bu ci junniy place espace vert yu yaatu te bari garab yu naat lool penc yu yaatu yu ñu mën a amale ay ndaje centre de santé di barab buy saytu wàllu wérgi yaram juma ñu mën cee dundal waxtu yu juróom espace commerciaux yu étudiants yi mën a jënde lépp lu ñuy soxla bu yàlla defee phase bu njëkk bi àgg dinañu gën a yaatal liggéeyu université Touba ci phase bi ci topp moo waral ñu fas yéene taxawal beneen campus universitaire ci beneen barab bu yaatu ci Touba ñu fas fa yéene amal yeneen faculté yu bari yu jëm ci fànni xam-xam yu am solo te dëppook jamono.